amna ci solo way Ablaye bo gisee sama xol fess ba sama rongoñ tuur mu ngi jëm ci ay nit ñoo xam dañ leen fay teg pour ñu servir ñu ñun. ñun waaw taxawu ñu parce que buñ né fonctionnaire dañ nan fonctionnaire de l'état état. c' est des gens yo xam ne dañ leen fi teg pour que ñom ñu fay servir ñu ñun. mais buñ ñu ba nga xam ne les fonctionnaires dañuy wëlbatiku doom di service sen bop ñun Sénégalais an fan lañ jëm. Hmm, te Sénégal dañu dem ba tollu fo xam dañu né pour nga nekk un milliardaire il faut que nga un politicien nek un fonctionnaire. fonctionnaire waay. Quand ça veut que daal Sénégal mooy dëkk boo xam ne léegi maintenant boo defee politique di nga nekk milliardaire boo nekkoon fonction publique di nga am milliardaire di nga nekk milliardaire. Hmm. mais milliards yi nga xam moom la ñuy am tey fan lañ ko jëlee su Ablaye. gis nga li Cheikh Bamba Dièye wax. man bettuma Abdoulaye. Hmm, hmm, yàgg nga ko kaas parce que chaque jour boo duggee ci àll bi nga gis la fa fonctionnaire yi ci suuf nga xam ne li du neen mais dafa mel ni que effectivement c'est en complicité avec état bu Sénégal ñoom ñoo toog di jéem a fexe ba enrichir ñi nga xam ay fonctionnaires la il est temps à ce que vraiment boo gisee ma naan Sénégal dafa jot li fi nekk dañ koy dufee système ñu changé ko Abdoulaye. surtout ça man li ma gëm Abdoulaye te du ma denc di ko wax. fii léegi système bi fi nekk mu ngi fi. ñun Sénégalais dañuy wéy à appauvrir. li tuuñ sa borongoñ lenn la mooy. naka nga mën a nekkee benn nit. nga jël ay milliards dugal ko sa biir compte. alors que barki Demba Ndiaye laa jógee Bousselé. Bousselé waaw ca Kaffrine Ndoukoumane. dem Dramé Escale. Hmm. dugg ci àll bi. ma gis ay xale yu jigéen yoo xam ne ni. bu ñuy jàngi cinq kilomètres la ñuy def aller. cinq kilomètres la ñuy retour ndax am sayam. te mu wóor la ne avec cinq cent millions de francs CFA mën nga leen tabaxal benn sayam. nañ ko régler. yow nga nekk benn nit kese. nga lekk ay milliards. ay milliards et milliards. yéeme na ci jamono. barki Demba Ndiaye lañ ma envoyé benn message fële ci Koungheul. ay nit ñoo xam ne ni actuellement ni amuñu maternité mm-hmm. ba finalement bu ñuy am doom ci biir néeg la ñuy amee doom wala ci biir wanak yi mm-hmm. yow ngay am fonctionnaire wala nga nekk am milliardaire di lekk yow ay milliards yow. ca Diof yor poste de santé. ba poste de santé foofu ne loolu foofu c'est que lii Ablaye moo tuur sama dong tey ci télé bi. mais maa ngi siy jégalu. Mm-hmm. moo tax maanaam gis nga ñun sénégalais il est temps à ce que vraiment ñu xam ne fulla ak fayda boroom pour que ñun ñu xamal leen politiciens là que Sénégal ñoom moomuñu ko ñoom. niñ ci amee cër ñu aussi noonu lañ ci amee cër moo tax ànduma ci xale yi nga xam ne actuellement dañu démissionné naan dañuy dem à l'extérieur non. nañu toog ci biir réew mi fekk politiciens xamal leen li ngeen yor bi moom moo leen ko ñun ñoo ko moom ñu fokk ko tey suñu loxo. parce que pauvreté bi ñuy dund du dëgg du yoon Abdoulaye man gëm a man. Mm-hmm. Sénégal li fi nekk ci alam. moo xam ci xaalis la moo xam ci gànjar la ñun Sénégalais même boo liggéeyul sax lu mu a sa biir mais alalu Sénégal de dafa wéete taxas genn wet nekkal politicien nek fonctionnaire pour que nek un milliardaire dougal ci àll Abdoulaye mm-hmm. man bu ma duggee ci àll dama yewu ci yàlla nak nga meuna nek ab fonctionnaire sa buntu ke nga gaare fa ñetti kaw yu huit wala ñetti kat kat eh. naka nga meuna nek nekkee ab fonctionnaire tas bu mu kawee boo demee immeuble yi nek Dakar yëpp ñu ñoko mom nak nga meuna nek nekk ab fonctionnaire bo démé ci àll bi daanaka ay verse nga fa am uh-huh, uh-huh. sa compte bancaire tey ji boo fa démé lu mu bon bon am na un milliard wala 2 milliards ci jamono ji la ñun Sénégalais ñun ñu ngi patir ñun ñu ngi dund ay jafé jafé ñu toog di lan ko sétane ñom loolu mo fi wara a jeex bëri na lu ñu leen di ñun sénégalais war a am fulla ak fayda bu ñu nangooti politiciens yi dañu remorqué bu fi benn sénégalais toogati politiciens yi fekk la si fa ngay di la jox junni ak ñaari junni nga toog ne la kaay ma jox la junni kaay ma jox la ñaari junni pour que nga mobiliser ma saaga na la loolu parce que li tax mu jox la ko am lu tax parce que xam na tey jii ak ndombal tànkam dafa nekk enjeu mm-hmm. ëllëg mën na koo ñàkk moom moo tax mu ñëw seet si la mais bu xasee ba rempli dootu ko gisati mm-hmm. Tellement il y a des moments que nous Sénégalais. au Sénégal. Quand le Sénégal m'a dit que en poule, mais lui m'a montré que c'était son lot. Tout à fait. Vous direz que tu as que ça. Abdoulaye, euh, lui c'est écran. Non, Yémen. Et lui bêtement Abdoulaye. Mm, mm, mm, Cinq jours m'a dit. Ah mm-hmm. Sénégal, il y a un président de la République qui a un fond noir pour 8 milliards de francs CFA. Je ne sais pas 8 milliards pour un président de la République. Je ne sais pas si tu as Mais Abdoulaye, 8 milliards, il y a un centre de santé de Montabar. 8 milliards, il y a un piste. ñaata ñaata yoon la mën a defar. yoonu mbos bii. mais avec 2 milliards mën nañu ko defar. dara ma escale ñu ngi jaay yoon ñu ngi jaay ñu ngi jooy yoon avec 5 milliards wala ñu ko defar nga jël 8 milliards jox un pénal pour ne ko boo neex xam ne ñun ñoo ko moom ñun. njiital assemblée nga bàq sal. président assemblée nationale nga jox ko 50 millions chaque fin de mois chaque fin ñettal la <laughs> ne la bu la neexee sax taalal. Euh, réew maa ngoog de. au conseil des collectivités na ko noonu conseil économique social environnemental na ko noonu <laughs> mais nag li ñun lii dañoo toog di ko seetlu ñun. am fu mu ne gàññ. ñun est-ce que ñun war na ñun Sénégalais yi ñun war nañoo toog di ñun. Hmm, a ne. fulla ak fayda borom. il est temps à ce ñu xamal politiciens ñoo ko moom. Hmm, pauvreté bi ñuy dund daf ñoo neex war suñoo dund pauvreté parce que alal ji fi nekk ñu ñoo am droit ñun sénégalais ñu war a mobiliser nanguwaat ko teg ko suñu loxo. Hmm, parce que lii c'est écran kenn ku ne am na ci mais naka ay fonctionnaires mën a ay milliardaires nekk ay milliardaires alors que tey jii boo demee ci àll bi nit ñi mënuñoo feebar faju Ablaye duggal ci àll bi. heure bi sax tane na. Mhm. mais ay y ci ginaaw billahi wallahi wa tallahi da ngay gis kenn bu amé café Touba. benn nit bu amé café Touba ci dëkk bi. Mhm. bu ko seggee. Mhm. kër yi nekk ci ginaaw yëpp fa lañ dem ñaan ko café. ñëpp ndeysaan kaw gi metti na tar bu amé benn saxu ceeb. kër yëpp dañ ñëw di la leb ci di la leb ciëp ku ne ci xib ku jéggi dayo ara ko ci jamono ñu la gaay ñu fait ay di ko ñu Sénégalais ñu tok di nangu ñun. mais fendi nañu nañu jafe-jafe yaa ngi. politiciens yi euh, tar ci ndox ak neuf lañu ñoom ñëpp ci pot. oui gëmuma leen ñoom ñëpp seen intérêt boobu moo leen tax a jóg ñun Sénégalais ñu war am suñu fula ak suñu farata jël lañu ñu moom mais c'est dommage Ablaye. mais la ma jaaxal mooy. lii c'est écœurant ñoom la ñu wéy di dénk réew mi ñoom woy politique yi. Euh, defe na euh, boo deful politique bëgg a laaj réew mi yenn saay sénégalais yi duñ la ko may mais topp ñi euh, moo leen gënal te loolee tamit da leen di jural gàllankoor te ni nga ko waxee rek mooy kenn ku ne war na cee jël matuwaay ba Sénégal gi ñu moom mun a jëm ca kanam ba li fi ne tey jaaduwul ñu mun koo soppi. yow yow est-ce que xel tey ji nga tey it nga tëj université. ëllëgu Sénégal suñu doomi actuellement loo xam te nga ko fenn. ba noppi yow si jamono ji la yow say doom ña nga jàng à ngay jàng. <laughs> ñoom ñëpp si ñoom tey ku ci feebar doo faju Sénégal. Hmm. ñoom ñëpp actuellement à l'extérieur la ñuy faju ji. Hmm. léegi ñu jël suñu mbir suñuy milliards accaparé ko toog ci hmm. nguuf ànd ko di ko lekk ñu ñuy appauvrir ñu Sénégal ñu di ko nangu.